sax bala ñu ñëw Touba déggoon nañu xam nañ bu baax Safinatul Aman liggéey bu baax bu mu def Touba kon bokk sawar nañu ñun administration ànd ak ku mel noonu saytu dogal yu mel nii kon bokk suñu xel gën na daal ndax ki ñu àndal ku xam li muy def la ndax yàgg ko def te jur njëriñ moo tax ñu dénkaat ko ko tey nii loolu suñu chance la parce que xëj na bu doon keneen dina am yéene ji dina am bëgg-bëgg bi waaye xam gi mën naa des te dogal yi jëm ci ay nit te looy teg nit rek ah lu war a xoolaat la bu baax waaye day ñun ñi nga xam ne ñoo yore administration taxaw nañu pare pour comité boobu ñu liggéey yoom ci ponk yépp ñu fi wax nag gouvernement Sénégal bu ñu amee dëkk bu mel ni Touba am maam mel ni sëñ Touba liggéey fi liggéey bu mel nii àddina yëpp di ko dañ ko war a ñàkk dañ ko war a aar gouvernement bi day parce que nee na ànd ak yéen man mi ko fi teewal ak ñii ma àndal parce que nañ leen soob suñu loxo ci liggéey boobu te fii ngeen ko bëgg a jaare day fu dëgg yàlla dal na xel lool parce que dem wàcc ci quartier yi wax ak délégué de yi dem ci village yi wax ak chef de village yi ku ci nekk wëlbatiku wax ak sa njaboot sëriñ bi ne njàngam njàngale mi sax nañ ko gën a farataal pour nit ñi gën a xam pour wàññi réer bi loolu day ba leen ko waxee ci ndawal buur xelam mën naa dal ndax lay fu dëgg yàlla bu sañoon Sénégal gépp ñu am lii kon boog dama leen di ndokkeel di ndokkeel sëriñ ci taxaw bi mu bëgg taxaw pour gën a ñàkk Touba gën a aar Touba ndax ñàkk Touba mooy ñàkk Sénégal rek ndax jikkoo su yàqoo lépp yàqu alal li muy baax baax jikkoo ko gën diine li muy jëkk li mu mujj ci nit lépp ku la diine jikkoom doyul bu la diineem doy ku la jikkoom doyul bu la diineem doy ndax jikkoo diine jikkoo ko tax jox moom lay visé ndax suñu boroom nekk na yàlla ba pare mooy buur bi borom waaye ñun jikko ju baax lañu yàlla bëggal te yonante bi sallallahu alayhi wa ah suñu borom day nee nañ tagguñu ko si day tagg ko si bàyyi si jikko la ko tagg kon boobu seen bi day xëy dañoo yërëm rek euh, yërëm njabootam rek moo tax mu bëgg ñoo jaaj bëgg ñoo xiir ci suñu boroom ba ñu moytu ay tereem di digle ay santaaneem nguur gi nag loolu ci lay taxaw ci loolu la nekk rawatina réew mu nga xam ne réew mu dafa nekk réew mu ndaw ndaw yi ñu ëpp ci réew mi tey kon boog duñu jàmbat rek li fi xew lu mën a am te ñu ne xëj na ndaw yi waruñu woon a mel nii jàmbat bi dadul doy rek dañuy def li sëñ bi def da ngay taxaw na parce que taxaw jox jéem dara mooy tax nga am dara waaye bu ñuy jàmbat ne suñu njaboot day nii lañu mel naa nañu mel di leen sikk am na beneen taxawaay bu ñu war a taxaw pour loolu ñu leen di sikkee mu mën a dañ pour xam nga xam ne taab bi ñu ci yàlla musal leen ci te yaakaar naa ne Touba solo nga ne jàngal xale yi diine diine jiitu seen dënd yi alxuraan jiitu seen ruub ba nga xam ne seytaane dafa mën a am place leen di jëkkanteeg seytaane ba seytaane dafa am place te lii bu lawee daara yi gën a am doole yaakaar naa ne réer dina deñ te ku yi fu yeewoo di nga am yaakaar ku fi am njaboot dina am yaakaar parce que sa njaboot ñamoy àndal ñu baax la ñuy doon koñ ba nga dëkk say dëkkandoo ñu baax la ñuy doon béréb yu mbedd ngay jaar doo fa dégg loo fa warul dégg wala gis fa loo fa warul gis kon boog sëñ bii société bi lay defar ñun nag nguur ci loolu la ñuy liggéey kon ba man ak ñi ma àndal ñu ngi leen di faskee ni jàppale ci liggéey boobu di wax ne ginnaaw liggéey bi dafa am ci ay loxo lu ñu ko teg ni ñëpp tënku ci ginnaaw ñañu teg jox liggéey bi ñooñu ànd ak administration